Doudou boo paree ñu dem ñu koy tàmbalee ak euh, li nga xamante ni moom moo amoon samedi dernier fële ca Grand Théâtre mu di anniversaire wu faatu géwél Diouf gannaaw nag ba anniversaire ba jàllee moom Fatou Guewel ci benn euh, entretien bu mu seex ak waa l'Observateur site internet yu bari daal di koy reprendre mhm. moom ñëwaat na ci li nga xamante ni moom moo di fin de carrière am Fatou jàpp na ni chaque jour mu ngi approché wu ci bàyyi musique ndax jàpp na ni fi ñu toll nii jot na euh, mu daal di bàyyi pour mën a consacré wu surtout ci li nga xamante ni moom moo di avenir am ak ay doomam waaye itam ci li nga xamante ni moom moo di diineem jamono ji bëggul lu dul arrêté pour. Euh, jaamu yàlla mu dellu si waat itam ci la nga xamante ni moom moo xewoon fële ca Grand Théâtre muy incident ya ñu fa nemmeeku woon moom Fatou Guewel dëggal ni incident yooyu am na ay nit jotoon nañ fa di xulloo ko xeex ndax ay place waaye ça s'est vite terminé ndax ñoom ñëpp c'était dans le bien dans le souci de bien faire mais nekkul woon dañu ñëwoon pour saboter wala lu ni mel ñëwaat itam ci nii nga xamante ni noonu la jàngatee jamono ji ñu toll nii grand théâtre moom Fatou Gueye jàpp na ni grand théâtre nekkatul benn yoon defi ci moom ndax jàpp na ni saa yu fa wootee dara rek xew mi dafay daal di euh, bari yu nga xamante ni dafay am ay xeex ak euh, yu ni mel ndax gis na ni xëy na dañ fa xajatul euh, moo tax bu ñu jógee ci loolu moo di waali Wally Ballago Seck fële nga xamante ni la nekkoon ca Bercy l'observateur nag dafa daal di def benn taxaw seetlu site yu internet yu bari daal ci Bercy waali Ballago Seck boobu ñoom journal bi di l'observateur jàpp nañ ni euh, saalu Bercy ba vingt mille places sa Wally nag dañ ko aménagé huit mille places pour mu tëggee ko mu daal di jaay nag six mille cinq cent place Euh, loolu la jaay bokkul ak yeneen deux 200 places yi nga xamante ni 2000 places du moins yi nga xamante ni moom la ventilé comme quota ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo dugg te paasuñu boo defee bilan bi maanaam loolu toll ci 7500 places ñoom xamle nañ ni loolu la Wally Ballago Seck feesal ca Grand Théâtre ba euh, waaye chiffres yi nga xamante ni moom la ñu joxe pour gëmloo ko Sénégalais yi bokkul benn yoon ak chiffres yi nga xamante ni moom moo nekk chiffres yu exact yi yéenekaay bi di l'Observateur moo xamle loolu site internet yu bari daal di koy reprendre titré ko les révélations de l'Observateur sur le concert de Wally Seck à Bercy bu ñu ca Bercy lañuy des ba tey ndax site internet bii di Dakar Buzz moom dafa wane benn photo bu nga xamante ni njiital de médias Bougane Gueye Dany mu ngi ca nekkoon dans les bras de de très belles femmes ñu jàpp ni Bougane daal foto bi bokk na ci li nga xamante ni moom moo gën a def buzz sur les réseaux sociaux ndax gis nañ ko daal ci ay loxoy xale yu xale yu xale yu jekk na bon ah. euh, boo site boobu daal di koy reprendre def Bougane Gueye Dany en compagnie d'une belle femme à Bercy ñoo jugee ci loolu ñëw ci absence su euh, soleil levant ci Bercy boobu la ñëpp xam nañ ne accompagner Wally Ballago Seck ci événement boobu mu doon amal ca Bercy le quatre juin d'ailleurs dañoo jotoon sax def benn single pour lancer euh, Bercy boobu waaye jour ba ba mu jotee kenn gisu leen benn yoon ca Bercy ba moom Sanekh nag indi na ci ay leeral ndax mu ngi xam ne ni. bari na ci ay rumeur yu ñuy dégg comme quoi que seen njiit Youssouma Jigéen Ndour moo leen tere ñu dem ca wala Ndiaga ak Ibou yu ni mel moom saa neex démentir na rumeur yooyu yëpp di xamle ni du benn yoon bu kenn ci future Médias taxawee ne leen bu ñu dem ci xew moomu leen ndaxte euh, ñoom ñoo jël seen euh, propre décision ba ñu dem parce que dafa bari woon liggéey bu nga xamante ni moom lañ doon amal fii bokk na ci tournée nu mu gën a graawee 30 sketch wiiri wiiri balaa ñuy dëgmal ko. ci activité yu bari yu nga xamante ni ñu ngi ko doon waajal pour koor gi looloo waral seen temps mayu leen benn yoon ñu dem teewe ji Bercy boobu noonu la waaye moom Sanékh mu ngi sàkku ci sénégalais ñu arrêté rumeur yi nga xamante ni moom la ñuy véhiculer comme quoi que nit da leen tere wala leneen ak leneen ndax moom jàpp na ni loolu yokk xar mi karaw la d'autant plus que kenn taxawul ca foofu nga xamante ni foofu la ñuy liggéeyee tere leen li nga xamante ni moom moo di dem ca Bessi Wally Seck boobu bu ñu jógee foofu Seyna bu ñëw ci eh, jabaru Aziz Ndiaye ñu koy woowee Miss Ndiaye alors Miss nag dafa amoon benn altercation bu xaw a metti ak benn invité fële ca Grand Théâtre bi Fatou Guewel di amal eh, anniversaire am bi photo bi nga ma du baaxul de boobu du miis wane lu leer voilà jaaxle naa daaloon ngeen jël aaw euh, euh, Aziz Ndiaye bu baax bi euh, di di jaawale bàyyi leen loolu indil leen ma miis. demal rek mu ngi ñëwaat demal dina la dab. voilà léegi Miss Ndiaye nag moom nekk soxna ci Aziz Ndiaye moom moo doon jàppante ak benn invité ca anniversaire u Fatou ba Dakar Buzz nag moo joxe information bi ndax jàpp na ni Miss ba mu ñëwee daal ci problème place dañ nekkoon di xuloo ba yëngal foofu ñëpp daal di jël seen attention tourné ko autour de ñoom moom Dakar Buzz nag muy xamle ni bari na ci ay vidéo yu nga xamante ni am na ci internet bi bu ko wane woon ñëpp daal di taf seen gémmiñ dina ci ñëwaat pour de plus amples euh, informations wax ñu lan moo waral xuloo boobu itam waaye it wax ñu euh, naka la Miss comporté woo ba muy jotee wala ba muy jàppante ak invité bi nga xamante ni moom la jëloon euh, décision wu nangu place am ñu jóge foofu ñëw ci Wally Ballago Seck Wally nag ñëw na dem ba fii ci Sénégal ñibbisi na gannaaw ba mu amalee concert am ba fële ca Bercy moom nag ak Wally Seck gannaaw bi mu ñibbisee dañ ko daal di teeru benn terte bu phénoménal image yi moom la ñuy gis noonu lii yëpp booloo daal di dem taxaw seen kër eh, di ko fa xaar di rafetlu ndam li nga xamante ni moom Wally Ballago Seck indi na ko ci réew mi ñu bari jàpp ni eh, bind ay pancarte dañuy wax mhm. affaire boobu waaw bind nañ ci daal weddi gis euh, bokk ci moom Waly Ballago Seck nag yëkkati ay kàddu euh, jëmale ko ci papaam ndax jàpp na ni dafa demoon Bercy juste pour rendre euh, pour rendre justice à son père wax boobu nag bari na nu ko ay nit di interpellé ndax xamuñu ban xeetu justice lay wax ak kan lay waxal moom Waly jàpp na ni fii ak deewul papaam incha allah dana taxaw ca seenu Bercy boobu ñuy ñaan nag mu mu dëggal incha allah moom Thione Ballago Seck itam joxe avem ci li moo di Bercy Wally boobu ndax moom Thione jàpp na ni Wally dafa rek relever le défi euh, di woo doomam nag aska mu xoolaat ni nga xamante ni noonu lay doxee daal di segg àndandoo yu bon yi jël àndandoo yu baax yi taf leen ci wetam moom Thione bëgg bëgg daal wala di sàkku ci doomam mu def autocritique nu mu gën a gaawee ndax lii euh, boo dee compter benn rek la ci wàññi la ca des moo gën a baax te mu ngi ñëw euh, ñu jugee ci coon Seck ñëw ci Souleymane Faye nag Souleymane fay dafa nekk jamono ji ñu toll di def le buzz sur les émission bu mu doon amal fële ci RTS ñu koy woowee dañ kumpa séq kook euh, benn journaliste bu tudd Ismaël suma juuma moom Souleymane Faye nag dafa def ay révélation yi doy waar ndax ku ne xam ne ni dafa am benn way bu mu way euh, tuddee ko bu leen di gaaw suul journaliste ba nag ba mu ko laajee lan moo tax mu wax bu leen di gaaw a suul site internet yépp a ko reprendre nag à l'unanimité moom Souleymane Faye xamle na ni yaayam ba muy décédé dañ koo dañ koo suul te deewul euh, maanaam dafa xamoon xam bu yàgg rek ñu daal di koy jël daal di koy suul moom nee na loolu bi muy am boobu moom euh, xàmmeegul woon bi mu màggee lañ ko ko nettali looloo waral sax mu woy bu leen di gaaw a euh, suul ñu mu jóge ci loolu itam ñëwaat ci dox gi nga xamante ni euh, nee na doxee na ko Canada ba New York pendant 4 jours moom nee na dafa àndoon ak groupe xalam tournée mu daal di daw Euh, doxee Canada ba New York pendant quatre jours moom Souleymane Faye nag ñëwaat ci péripéties yi nga xamante ni moom la dundu ci dox boobu euh, bokk na ci ndox mi nga xamante ni moom la daan naan mooy ndoxum neige bi daan seey di wàcc ci tali yi moom la daan naan ak euh, yenn ci ay sandwich ay gunóor rek ay mbóotab yu ne mel yu usé moom la daan for ci pubadi yi di ko lekk bi mu ñëwee ba ca frontière u Canada ba pour dugg biir États-Unis dafa gis benn camion am benn force bu ne ko tee ngaa dugg ci ginnaaw camion bi mu dugg ci ginnaaw camion bi jàppandu ci ruu bi noonu la duggee ci frontière bi ba police euh, américaine bi daal di koy jàpp bi ñu ko jàppee mu yor benn guitare moom Souleymane fay di xam le ni ñooñu laaj ko fan nga jëm ak sa guitare mu ne leen dama ñëw Amérique pour musique ñoo ñoo ko may xaalis ko mu dem mu jàpp loolu yëpp force divine la bu nga xamante ni yàlla moo àndoon ak euh, moom yi mu révélé nii nag bokk ci li nga xamante ni jamono ji nabu euh, mu ngi def euh, tollé sur les réseaux sociaux ndax ñi ñenn ñi bu ñu jàppee ni Souleymane Faye déséquilibre bi ñu koy jiñ dëgg la ñi ci des jàpp ni parcours am doy na waar loolu looloo def sax force bi nga xamante ni moom la àndal nii ba tey bu ñu jugee ci Souleymane fay ñëw ci DS Major alors DS Major nag dafa defoon benn sortie sur son Snapchat à elle encore une fois doon snappé capture dugal ko ñoom seen ay site looloo waral sax euh, association des religieux du Sénégal daal di koy yónnee benn situation directe porté ko plainte ndax jàpp nañ ni lii attentat à la pudeur la mu nekk nag lu nga xamante ni une deuxième fois muy xew ndax moom jotoon nañ koo porté plainte ci yu euh, mel noonu man nag ma koy wu personnellement euh, ñu jugee foofu ñëw ci ñi nga xamante ni ñoo la njiital kër gi El Hadj di Lamine Niass promettre ne dina leen yóbbu màkka ci atum ren ki ci jiitu di Thiaba keneen ki di Madaba moom ñoom nag Euh, Sidi Lamine Niass dafa bokk Thiaba Dramé Ndiaye. Thiaba Dramé madame Ndiaye waaw. da lay door de. ah day <laughs> alors euh, moom Thiaba Dramé ak euh, Madaba Sidi Lamine Niass bokk nañ ñoom ci ñi nga xamante ni ñoom lay yóbbu Màkka ci ajub ren bi ñu leen di souhaiter vraiment un très bon voyage. di mhm. sàkku ci ñoom ay ay ñaana. Thiaba moom daa baax lu raw dina ko am. allah <laughs> révélation ñu ñëw ci euh, ñu jeexalee ko ak euh, ki nga xamante ni moom moo di euh, saltige yi nga xamante ni ñoom jàngat nañ lii am ci année bi ba pare ñu ubbee ko nag ak Moustapha Niass ndax ñoom jàpp nañ ni Moustapha Niass du jeexal mandaawam moom ñoom saltige gis nañ ni Moustapha Niass ci seen ay misaal dañ koo gis mu tëdd ay moroomam yëpp daal di koy tiim looloo waral sax ñu xam ne ni Moustapha Niass mi du yeggali mandaawam dafa nar feebar mm. euh, feebar bu métti métti ñu ñëw ci keneen ku nga xamante ni moo dul ye yeggali mandaawam muy njiital réew mi di Macky Sall ñoom gis nañ ni euh, Macky Sall dina am yeneen fa tey lañ gis yeneen ñaari concurrent yi nag jàpp nañ Macky sot sotoo ko ba daal di damm tànk bi moom Macky ci li ñu gis ci ay misaal tànk bi ma nga doon boité Mariam fay daal moo dawoon di ko jàpp kolam daal dee wadd ñoom saltige yi noonu lañ ko misaalee ni daal ñaar ñooñu njort nañ ni bu ñu génneewul Mariam ma ko sauvé nga ne ko tere bi waaw jigéen jigéen day sauvé jëkkër ji tabaarakallaahu waaw nee nañ kol ba wadd na daal dafa mel ni mu. dañ koy for rek joxaat ko ko nañ ko for rek joxaat ko ko. <laughs> nañ ko na ko for tegoo waat ah? ko for tegoo waaw waaw gën ah, a ñëw rek baax kon kon tata Marème bul prendre garde ci sa kol gi nag fan yii ah? kol gi boo dee rek tiital. saltige yee ko wax euh, ñoom nee nañ bu euh, Macky ak Moustapha Niass deful euh, sarax yi nga xamante ni moom lañ leen digal comme ni mu waree gëm nañ ni ñoom ak firnde du ñu yeggale li nga xamante ni moo di seen mandat keneen ko am jëkkër nag moo di Tata Rose ah ñu jeexalee ko foofu Tata Rose nekk artiste comédienne joué ci série boobu la di Mbay Dollar ak yeneen ak yeneen moom am na jëkkër ñu koy souhaité vraiment un très heureux ménage ah yaay ah. Ah, sama goro la kon ku mu am si di may ñaareelam. waaw kon Goro maa ngi lay souhaiter un ménage ñu jeexale ko foofu Seyna bu dem ci actualité du people international. ñu ah, koy ubbee kii mooy Miss Ndiaye ah. Mhm. voilà kii mooy Miss Ndiaye photo bi ñu njëkkoon wane kooku mooy Mam Binta mooy. kii mooy ñaareelam bu jekk bu taare boobu ah. moo doon xeex waaw jabaru Ndeye Anta Ndiaye. Chéri kii la moo moom moo doon moo doon xeex. Euh, ñu ñëw ci Rihanna alors Rihanna nag moom Euh, dafa dañ ko porter plainte par un organisateur bu nga xamante ni c'est un Nigérien moom nag dafa daal di jox Rihanna xaalis bu takkoo takk pour mu ñëw def benn tournée foofu la ci Nigéria xaalis baa ngi toll ci cent soixante millions euh, de dollars moom nag Rihanna ca la ko waaj a gëjee teg bët. Euh, waa ji nag daal dee ñaawlu loolu ba daal dee jël Rihanna moomu ak labelam porte leen plainte jamono ji ñu toll loxo yaa ngi ci yëf yaa ngi ci loxo yoon na bu mel ni ñoom sax dañuy dóor de. Mm. la doo tëggal nii rek wax na ma ko. Rihanna. Mm-hmm. lii fay nañ la. tëggal leen rek dina woon na fi après jox naa ko. wala moo tàng boog. waroon nga leen tëggal 160 millions de dollars nga encaissé ko ñu ñëw ci kiwaas Chavez moom nag Jay-Z da koo daal di signal Euh, mu bokk ci label bi nga xamante ni moom moo di labelu Jay-Z dorénavant moom mii nga xamante ni moo di Tiwa Savage nekk artiste nigérienne moom signé nañ ko ci label bi nga xamante ni moo gën a mag pratiquement ci monde bi mu mel ne suñu musique musique africaine laay wax à chaque fois dañuy gis évolution à chaque fois dañuy gis ni nga xamante ni euh, noom noonu lay développé euh, vraiment ñuy ñaan nag euh, signature contrat yu mel noonu suñuy artiste sénégalais topp ci waaye yéen moom <laughs> xëccoo ngeen fi nekk yi ñoom ñu ngi wëri ji ay contrat feneen amul ah, tax am voilà hmm? nañuy toog nii rek yi di xëccoo saalu bees yi nga xam ne mook saal yëpp yam Hmm. Hmm? gën a gën a bëri les places lañ ci lañ ciy jooy. ak grandeur. gars yi xëccoo ay contrat wallaay kii moom kii moom macha allah. ti ti Tiwa Chavez. yal na ci yàlla nañ ci topp ah yàlla na ci <laughs> Momo Dieng topp. Hmm. ñu ñëw ci ki nga xamante ni moom moo di Miss États-Unis 2016 alors Miss États-Unis 2016 moom nag euh, dafa nekk officier dans l'armée Euh, américaine mm. ba pare dellu nekk Miss États-Unis lii nag bokk ci li nga xamante ni jamono ji moom mu gën a euh, jaaxal ñi nga xamante ni ñoo di internautes yeeg euh, jury ba fa nekkoon ak ñeneen ak ñeneen ndax nekk officier dans l'armée ak ñoom seen armée ni mu stricté déjà c'est quelque chose beneen bi nga ànd ak beauté bu doy waar ba pare dem postuler Miss États-Unis 2016 daal di koy gagné mu mel ni Euh, jigéen ñi fu ñu mënti nekk rek dañuy wane toujours seen touche de féminité ndax euh, nekk militaire vraiment terewul euh, gëm sa bopp di defaroo ka ka defi yëf macha allah. doon militaire mel ni góor yi waaw góor yi kon mu doon militaire gendarme policier jigéen sax jigéen day saf jigéen góor saf góor ñu jeexale ko Seynabou ak Madonna Madonna nag dafa am benn fille adoptive bu nekk fii ci ci ci ci Afrique ah. fii adoptif boobu nag fii ci Afrique la ko adopté woon dal di koy yóbbu ci États-Unis grand-mère xale boobu nag moo génn ci réseaux sociaux yëpp moom di ñaanaka ak jooy ngir sàkk ñu delloo sil ko sëtam boobule mu gis ko nu mu gën a gaawee ndax moom jàpp na ni day waaj génnaa génn àddina te Madonna ba muy jël si xale bi ci seeni loxo waxu leen woon lii ñoom nag bëgg nañ nu mu gën a gaawee rek nañ leen indilaat seen doom mu xool ko rek moom nangu ko benn yoon moom grand doomu Madonna bi xam le na ni bëggu koo nangu benn yoon waaye daf koo bëgg rek gis ndax kooku bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko gënoon ci ay euh, sëtam na yàlla ne nekkoo ko Madonna di Madonna bu dee yaa may dégg delloo sil nag euh, euh, sëtu jàmbur nag du dëgg ah mhm. waaw delloo si ko mu xool ko maam day waaja de dee mu ngi lay seetaan mu may seetaan ñoom dañ may seetaan ah. man réew mi yëpp ñu may man nañu seetaan de est-ce que yëg nga loolu bi nga xewee daa yàgg nag de jeey macha allah mhm. mhm. na loolu moo nekkoon seen actualité du people national et international di la jox rendez-vous yow lundi incha allah